jërëjëf jërëjëf sëñ As loolu dañ koy tëj parenthèse la woon ngir ñu waxtaan ci kon sëñ As lan nga ñuy may tey ci xam-xam gàncax garab lu ñu mën a jëfandikoo daal loo xamante ni ñi mënta ñëw ci sa jëmm ji jot ci sa jëmm ji mën nañ ko defal seen bopp ci njariñ garab yàlla dafa bind ci moom waaw junney tur dëgg la ñetti junne tur la am ñetti junni tur 99 tur yi la jox eh, sariya. waaw bu leen neexee ñu bànneeku ci. ndeysaan yi jiite mu jox leen tawret injil zabur ñetti téeméer ñetti téeméer. waaw mu jël benn junne bi jox ko malaaka yi. Uh-huh. Eh, jël benn junne bi jox ko garab ji. Uh-huh. garab kon am <laughs> mu jël nag benn tur bi nëbbu ko ci ismulaay azam tur yàlla bi ma la tojoloon. waaw fan yee paase. waaw ba génnee la ca biir te ko xam. maanaam baatin dëgg aram safara tur boobu sax dafa am baatin nooy jilee garab garab. garab boo koy jël du da ngay ñëw rek dagg de. déedéet ku ko nga dagg ci xas meeg wala ci reen yi. garab dafa am ñu sant puy am ñu sant lëy am ñu sant ñes ñoo ci ëpp doole puy boo koy dagg da ngay wax ñes wala nga wax puy wala nga xam wax lëy. su ko jël ñu uyu la. nga dagg booy jëflanteeg ñoom da ngay jëflanteeg parce que dafa am bakkan comme yow ni nga amee bakkan. waaw ñuy dee comme yow ni ngay dee. nga ñaan leen ñu may la dañuy sëy comme yow ni ngay sëyee. ba garab day sëy ndax ñuy am ay doom ay sëñ bi nañu gars yi nañu tu xam-xam garab day sëy day jur waaw dafay am doom day lekk day naan allahu akbar xam-xam dafay yaatuwul dafay yomb oh. mu ngi fii te xoolal boo xoolee waaw garab yooyu dafa am loo xam ne yàlla da ko ci def léeg-léeg gis kii